sàngara quinze cigarette kooku mën nañ ko tàqale tomate kooku fekkente loo am du taxaw walla loo dénc mu yàqu sa xaas ñu fekkante kooku amal nañu seen garab nañ prévoir nañ lu néew kattan dañ koy yëngu hmm. dañ ci yëngu bu baax dañ koy liggéey ci alxuraan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 Eh, di nuyu képp kuy seetaan joor ak maajoor nuyu naa leen di ziar baax a baax di wax ne maajoor na topp jo na topp yaama rek bu toppee yaa mun naa am yaam leer yaa xam naa lim ci xam bariwul ndax moom bi daa ñëw ci kër gi mu génnee ko waaye nag bu ci toppee moom mun naa am dina ko xam te yaama gëm naa ne instant bi mu ngi jàmbu yaayam te fekk jàmbur yaayam du sëy ndax yaayam baaxut te nar koo sëyloo moom ba mu koy forcer pour mu tëdd ak maajoor boobu mayeegut ko ko léegi instant bi mu may ko ko ne dutu tëdd moom feeg muruñ ko loolu fan la am te borom nga ko doon forcer pour mu tëdd ak moom te boobu takkagul ko léegi instant bi na mooy ne ko na bàyyi ba mu bañ muur ko mu doog a tëdd ak moom loolu fu mu am yaama daa bu jàmboo yaayam sëy sëyam dina neex képp ki nga xam ne sa yaay baaxul boo ko jàmboo sa sëy dina neex ndax yaay ju baax ngay topp buy dégg toppal sa yaay waajur dafa foor dafa fekk waajur ga baax waaye bu waajur bu baaxul jarul topp ndax heure bu nekk rek ci lu lay surxal te heure bu nekk rek lu lay dugal kon nag képp ki nga xam ne yaa ngi am sa waajur nga xam ne yow sa waajur bii baaxul dafa dëng nga génne ko si mu bañ du génne ci lim nekk yow bàyyi ko fa nga bàyyi ko ndànk bu ko toroxal bu ko wax lu ñaaw waaye sëyal sa sëy dundal sa dund te bu ko boole sa bit privé képp ku nekk daal di li sëy rek maa ngi la koy digal di wax ne kontaan nañ trop ci série bi gëj naa dugg nag waaye maa ngi jégalu bu baax a baax a baax noonu rek. salaamaaleykum maa ngi leen nuyu leen ziar wax ni ma joor ak joor de moom instant yi neexatul parce que joor dafa war a wér nag vraiment xam nga dem toog sëy sëyam foofu la affaire yi gën a mais mu nekk si àll bi di taxawaalu xam nga sàcc di ko jàpp affaire daal mi ngi bëgg a changer daal vraiment bu njëkk ba neexoon mais léegi moom day bëgg a changer. salaamaaleykum. kontaan naa naa <coughs> mais naar dina def olof caay lu mu wax nee kuy naan dina bëtu boo mën dee feeñ <laughs> affaire bi leer bu dee leer dina leer mu mel ni comme bëccëg parce que on naar dafa dem ba sës léegi arrière amul bu fekkoon arrière naa sax dina mus mucc ndax paa bëgg na ko mais paa bi na ko fu ne mais instant bi day kiil jooro jooro lay kiil bu kiilee jooro kooku sàmmam si théâtre bi dootuñu ko ci sàmm day dugg day dem ba jeex dootul saf dara dootul jagar jaagar dootul def xaala ya musa nur mariam loolu xam nañ ko bu baax loolu gis nañ ko waaw dina def li nga xam ne moom du dem daal du dem du dem parce que li nga xam ne moom loolu rafetul ñi ñu ngi yeewi nit ñi ñi nga xam lu garaaw parce que lii am na lii moo fi nekk mooy daw loolu moo tax ñu pour ñu xam ñun ñëpp ñu xam lii dafa am waaye ñaari nit rek mun ñu ñaari nit rek mun ñu bokk quoi seen xeet bëgguñu seen xool am na ñi xam ni luñ seentoo xaalis lii xaalis jarul lii xaalis jarul lii lii man de xaalis jaruluma lii ma def nii nit ay nit ay bakkan bakkan yombul kenn du ko jaay marché kenn bu dem marché Sandaga di fa jaay ay bakkan kenn du dem feneen di ko jaay foofu bakkan France la ni ñi bëgg dem xoolal bakkan amul foofu bu fekkoon amoon na bakkam xoolal dañuy fekk suñu maam te ñun duñu xaj si àdduna bi waaye bakkan kenn du ko kiyee noonu yàlla suñu borom moom li mu def kenn xamu ko na def yéen ngi jàmm bu baax dañ leen déggante baa yéen a ngi am jàmm maa joxe jox épisode bi moom doy na waar trop waa naar nag lu bëgg naar mi daal néeg na te Pape Birahim xam naa ne moom it war naa changer comportement moom laa rakkam ji mënut fexe mukk mukk mukk ba comprendre ko rek war mu gëm lii maajoor di ko wax ay dëri rek lay def yenn yi dafa ñaaw bañ nit ki ba di ko rey waaye xale bu góor bi tamit baaxul biir baaxul bitti ku bon la bi ko nar a imposé lii na ko rey dafa doon taxaw dëggal boppam ne ko duma ko rey ndax mënuma ko ah bii mbañale métti na trop trop trop métti na ba ci kanamu yàlla nit ñi néeg ñi nañ bàyyi seen néeg yi seen soxor yi ñu nekkee nañ ko bàyyi saa Ibrahima na gëm lii ko major di wax mu def ko moo gën métti na daal ah yaama tamit moom na góor a góorgóorlu tuuti rek si góorgóorlu la léegi yaayam li def dana feeñ na xaw a góorgóorlu tuuti rek. waaw daanaka nag jamono ji toll nii ngi liggéeyal bitim réew ñu ëpp ñu ngi liggéeyal Sénégal. d'accord mais ni may liggéeyal ci ëpp damay naan su fekkente ni gis nga GPS yi. Mhm. da ngay sa nag wala sa mbokk bëgg naa tamit ku may liggéeyal. yow gisoo ma gisuma la téléphone dafa doy waar sa mbokk ñëw ci sama kër gis ma gis sama kër xam ma encore ëllëg soo may seet xam fa muy fekk. dafa am solo. mën naa dugg Ndakaar su ma fi jugee tey am fi ñaari ku jugee fa dem fële liggéey fa nekk. Mhm. mais parce que nit ki ngay fexe ba mu ngay sa jën na lew jox say waajur na lew li ngay jox say njaboot na ndax loolu ñaan yàlla yàlla mën ko nangu effectivement parce que suñu sëriñ boobu loolu la jàngal ñett njëriñ mhm. tàppale client defarul dara loolu yàq rek